asalaamaaleykum waa commune u Bambilor asalaamaaleykum waa Bambilor village asalaamaaleykum waa Médina Bambilor euh, man la Waly ndaw di responsable politique fii ci Médina Bambilor euh, di yeewoo fii aussi ci medina Bambilor di doomu Médina Bambilor euh, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yeewoo ci commune u Bambilor rawatina Bambilor rawatina wa Medina Bambilor di nuyu aussi ko xam ne mënuñoo nuyu kenn sans jaar ci turam parce que tay ji bu ñu nekkee tay ci li ñu nekk di ci yëngatu euh, c'est grâce à lui muy euh, honorable député maire euh, monsieur Ndiagne Diop ñu koy nuyu bu baax di feddali suñu kóllëre ak euh di rafetlu liggéey bi nga xam mi ngi koy def ci commune Bambilor di nuyu tous les responsables politiques hommes et femmes euh, de Bambilor. Je content de aussi de Sente Waifi et de Samoke. Au final, j'étais très fier pour pas euh, être le parrain. Aussi, je euh, sais que l'espoir espoir recommence. Je suis un Parce que, n'oubliez pas, j'étais le secrétaire général de l'ASC Medina Bambilor pendant 4 ans. Euh, yakarna man rek la yalla sunu borom dimbali ma yëkëti ko en tant que secrétaire général bu ASC Medina Bambilor def ko deux éditions ak ASC cosaan bu Sangalkam gagné ko avec la manière donc muy lo xamné kenn duko faté ci commune Bambilor rawatina wa zone 7 10 bu bu Sangalkam euh, final bi tay nak man ma nekkoon parrain bi euh, grâce à mes frères ñi nga xam ne ñoo déplacer woon fi fekk ma fi euh, ndokk nag bi ñu comprendre ne doomu médina bambiloor la balaa ñu koy tuddee kenn parce que mënoon nañ ko tuddee kii ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci Bambilor ou bien ci médina bambiloor donc buñ ma tànnee ne dañ ma tuddee seen final amuma lu dul gërëm leen sant leen ci loolu ñu def kontaan bu baax nag euh, ci manière bi nga xam ne moom la final bi déroulé parce que sincèrement parler déroulé na ci jàmm ak salaam ak respect cër. wane ne ñoom ñëpp ay doomu Médina Bambilor lañ gis ngeen carrément image bi nga xam ne moo ma gën a marqué buy bi may joxe coupe bi euh, le capitaine de Harlem ak ak le capitaine de de Capital United ñoom ñaar laa joxandoo coupe bi donc loolu wax dëgg yàlla mbégte mënu ko rëy mënu ko gën a rëy sincèrement parler te ñun aussi Médina Bambilor loolu la ñu bëgg muy union loolu la ñuy wootee ci la jeunesse euh, parce que ñun aussi amuñu kenn ku dul jeune Médina Bambilor ñoom la ñu am ñoom tamit ñun la ñu am donc mun naa wax sotti ci def ci la euh, di leen remercier euh, di leen gërëm tamit ci vraiment taxawaay bi ak déroulement bi nga xam ne événement bi demee na noonu. mun na doon loo xam ne chaque année mun na am parce que day boole quartier bi di boole jeunesse bi parce que da ngay xool ñaari équipe yi football sax des fois doo xam sax joueurs yi nga xam ne ñu ngi ci biir di football donc en tant que koo xam ne yaa ngi yeewoo ci quartier bi boo amee opportunité ñuy dajale say jeunes.

parce que AIC Medina Bambilor comme ni ma ko waxee sank gëj na def sacre depuis 2015 Et lolu liko andi indi mom moy euh, manque d'organisation ci jeunesse bi waaw donc li bu amé def len di dimbali ba navetane avant mo ñëwaat euh, ñu lu ba mëna am benn équipe bo xamné ne ko présenter ça sera 100 euh, Medina Bambilor ño xamné Medina Bambilor la yéwo et ils auront aussi la compétence euh, la capacité de remporter des trophées comme ni ñu ko ça tombe à pic parce que ko xam maire xam ne sport moo ko ñor donc euh, lancé na ko te gëm nañ ne dinañ ko réaliser parce que loo xam ne moom moo ko woote la j'ai assisté à deux réunions yoo xam ne ci loolu la ñuy waxtaane bëgguñu rek wax ko mu yem foofu mais liñ koy ñaan mooy à chaque fois rek balaa yàgg mu def pause première pierre stade municipal pour bu commune Bambilor loolu lañ koy ñaan parce que moi aussi vraiment euh, ku ku am cawarte la ci def parce que je me rappelle lors de l'inauguration du marché de Bambilor jour vers 22 h woo nañu commune di ñu carrément discussion ak ñi nga xam ne ñoo réaliser projet boobu donc loolu mun nañ ne dans les jours à venir incha allahu maire dina taxaw ci loolu. waa ci wàllu esport nag surtout ak wàllu jeunesse bi lépp loo xam ne ñoom xewle nañ ko ma yëg ko wala ma ñàkk ko yëg man bu ma ci demul ñii dañuy dem ku mel ni Yoro ku mel ni Bàcci Diouf ku mel ni Abdou Aziz soow wala ñoom Baye Moussa wala le président de l'ASC Arona Sow mm-hmm. ak ku munti doon ci ñoom Maguette Diallo tout le monde euh, ñoom dañuy jël seen seen i moyens di leen jàppale la jeunesse sincèrement parler parce que man lépp loo xam ne tey nit taxaw na fa fu fu nit mu di taxaw tey ne Waly Ndao yaakaar naa fi ma njëkk a xamee football la ku dem Kër Ndiaye Lo wala nga dem Koonoon boo ne Waly Ndao la secrétaire général de l'ASC Médina Bambilor wala nga dem Noflaay ASC Pastef xam nañ bu baax Waly Ndao te c'est grâce à le sport c'est grâce à aux jeunes aussi de Médina Bambilor c'est grâce à l'ASC de Médina Bambilor moo tax tey lépp loo xam ne tamit am naa ko wala ma mun ko vraiment duma leen ci fàtte dama leen ciy jàppale chaque fois damay woote union parce que récemment gis ngeen

sincèrement parler mérito nañ terrain de football Aïsé Médina Bambilor aussi ak Médina Bambilor du quartier bu ndaw n'est-ce pas dafa nek bir Bambilor mais deux la le maire même lui même il a compris cela donc tay limay may ñeñ diko di euh, la jeunesse de Médina Bambilor moy monsieur le maire d'appeler la jeunesse de Médina Bambilor Nous aussi ma leen di lancer appel cette jeunesse Nous avons ñu ñu dans l'union bokku ndey bokku qu'il parce que amul grande importance Euh, ñuy xëcc di jëm gauche ñii di xëcc di jëm droite li ñuy dimbali tey pour terrain de football boobu wala lu munti doon ñu am ko mooy que tey lépp loo xam ne soxla nañ ko nañ ko te demander ko dans la discipline dem ci ki nga xam ne moom moo ko mën a joxe mu dimbali ñu ci te kenn mënu ko nag ku dul njënjub waaw puisqu'il est le maire il est l'élu donc comme moom la fi yàlla teg nit ñi tamit teg ko fi amuñu lu dul tey bu nu amee soxla ñu dem ci moom wax mais daal ñor ñun jeunesse boobu mooy terrain de bu bu Médina Bambilor di remercier nak eh, ki nga xam ngi tok à ma gauche di une grande responsable politique di Adji Gueye di di remercier ay natangom ku melni ni Diagne Baylo et Nabo et parmi tant d'autres Lisa Anna tout le monde Mangi ngi di remercier di remercier jeunesse bi nga xam ne and ak Waly Ndaw ku lim jum ñoom ñu ngi ci bir Mangi ngi di remercier di grum, gërëm di leen sant ci sen téway fi ak terrain di remercier la population de de Médina Bambilor di kontaan aussi ci la presse votre présence ici et au aussi di kontaan bu baax a baax a baax ci yéen